بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل منهم رسلا واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم الرسل وعير العالمين وجعله أمته أكرم الأمم wala alihi wa saxbihi wasallama tasliman ginnaaw bi nu ubbi ko ci turu borom boobu di subhaanahu wa taala nu ngi koy gërëm di ko sant di julli ci sangub sangay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal mbokki jullit yi di ñaanal tamit kilifay diine yi di ci jiital Cherif Baye Abdullahi yal na yàlla dolli ko wér ak fan wu gudd di ñaanal tamit mboolem jullit yàlla na buru yàlla dool leen ndimbal nu ngi dellu waat ci seen émission firi xutbay seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam di leen ko amalal ayu bés bu ne ci àllarba bu jot ci waxtu wii di ci ànd ak muxaddam Ababacar Laye Baas ak seen mbokk seynu lay juuf waxtu wu nekk ci ay bés bu ne nu ci ànd ak yéen comme niñ koy faral di waxee rekk jamono yi nag noo ngi woon nag ci xutbay Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam yu tedd yooyu nga xam ni matale na dajal na ëmb na lépp jullit ba nga xam ni képp ku ci teg telu rekk sa yoon dana leer incha allah moo waraloon sax ay bés bi nu génne nu àndoon ci yéen ak yéen ci càmbaraat ka nan lañ ko dégg ak nan lañ ko gisee ngir rekk xam ni seydinaa limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam lépp matalan jàngal nañu yàlla sunu borom subhaanahu wa taala xamal nañu yàlla sunu borom subhaanahu wa kon la des mooy nu dégg daldi jëfe kon yàlla nu yàlla may dégg ak topp te yombalal na nu mën a jëf tey nag danuy ñëw ci xutbay taawam seydina isaa ruwallah moom mi nga xam ni moo dëggal seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ni bàyyilaaykat jàngal nañu sunu boroom waaye moom moo jàngal kan mooy seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam kon tey dañuy ñëw ci xutba yi nga xam ni moom tamit defoon na ko ci ak dundam lépp tamit jëm ci laaya biir jaam yàlla yi bu ko defee nag ni nu ko taamoo rekk dikk ànd ak yéen saa su nekk rek noonu la nuy continuer ak yéen kenn mu gën a rafete rek dikk ànd tamit ak yéen waaye dañ ci dalal Ababacar Laye Basse di ko déglu mu feccil nu ko ci làmmañu wolof comme nun ko miine ci moom yal na ko yàlla defal dégg defal ko ndimbal defal ko ak topp defal nu ko tamit nun ñii nga xam ni nooy déglu di taataan ba mën cee jariñu kon bu ko defee rek yàlla na nu yàlla defal ndimbal ba nga xamante ni lépp loo xamante ni mooy ci sunu njort rekk yàlla kaweel nu loolu ndaxte kenn du seydinaa limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam waaye kenn du seydinaa isaa ruwalaahi kon sanga bi dañu lay jox kàddu gi ànd ak dal di la déglu lan la sayidina isa Rouhou Lahi indi woon ci li nga xam ni moom la laabire woon jaam yàlla yi kon mu xaddam bismillah bismillahi rahmaani rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها المستمعون الكرام نحييكم بأزكى وأطيب وأجمل تحية الإسلام نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yu tedd yi ñuy déglu ñu ngi yëkki ay nuyoo islaam yu tedd di yëkki ay ziyaara yu tedd tabaarakallaahu di ko jëmale ci yéen ñuy ñaan yàlla ñi ñuy déglu te nekk ci tiis yàlla na sunu boroom tegg leen tiis ya ñi ñuy déglu te ànd ak tawat yal na saa boroom faral leen tawat ya ñi ñuy déglu te nekk ci ay xat-xat yal na saa boroom génne leen ci xat-xat yooya ñi ñuy déglu it fa tabaarakallaahu te ami aajo yu tar yal na saa boroom fajal leen aajo yooya ñu ñaan fa tabarakallahu jotaay bi yàlla na ko yàlla def jotaay bu ñu nangu muy jotaayu yiw kon ni ko al oustaz Seynou waxe léegi fa tabarakallahu boobu ba tey ñi ngi ànd ak yéen ci seen rajo Jàmmalaahi FM 92.3 ci àllarba bu jot ci 20 h di ñëw ak yéen ci xutbay seydina imaamilaa il mahdi alayhi aleyhi salaatu wassalaam firiloon nañ leen juróom benn xutba ya fa tabarakallahu ñu fas yéene dugg nag ci xutbay taawam di xalifaam ba njëkk di sayidina isa ruullahi alayhi salatu wassalam. sayidina isa sang bu tedd ba seydina limaamu laayil mahdi mi ngi ko meññ ci ba mu at ak ñett 33 ans ci la am dom bu góor dom bu ñu dippé ko seydinaa isa ruullaahi alayhi salaatu wassalaam muy mbiru sunu borom ndax seydina limaamu turam ci boppam ay tegtal ñoo waral ay waajuram tudd ko seydina limaamu seydina isa ruullaahi it ay tegtal ñoo waral it ñu tudd ko seydinaa isa ruullaahi du ne rekk dafa neex wayjur ya ni ngay ame doom seet sa wayjur wu la neex walla sa xarit bu la neex walla koo bëgg nga tudde ko doom demewul noonu ci seydina limaamu ak seydina isa ruullaahi alayhi salaatu wassalaam bu dee ci seydina limaamu Baye Abdoulaye Sylla wax nañu ko moo ngi koy wax ci isaalul jaxli gannaaw ba délégation bu jóge yoof ci njiitalu Seydina Maam Alxasan mi nga xam ni mooy juru seydinaa Seydina Limaamu ñu dem ci góoru yàlla ba nga xam ne dafa doon taal jihaar doon taal jihaad di jihaad ci yoonu yàlla ba ñu yeggee kilifa ga dalal leen tatagal leen laaj leen ñooy mbokki fan ñu ne ko ñoom ñooy mbokki sow mu ne leen yéen dey sunu boroom won na ma ne limaamul mahdi yu mi jamono di xaar ci yéen ñii la war a feeñ ndax neena na booba gis na leerug seydina limaamul mahdi ci jëmmi maam alxasan mi nga xam ne mooy wayjuru limaamu leer ga di sàbba boroomam di wax allah allah allahu rabbana allah allahu xasbuna waaye ci teggin ak it xam ne lu yàlla nëbb la mu ne waaye yéen ñi daal ku ci am doom bu góor rek na nga ko tudde limaamul mahdi yu ndax ci yéen lay feeñe mu neeti yéen waroo leen sax jóg di fekki diine ndax wormal naa leer gi nekk ci jëmmi góor gu tedd gi muy maam alxasan kon wëlbatiku leen diine war a jóg fekk si leen noonu ci lañu laxasaat daal dee dellu siwaat jant ba ñu ñëwee fa tabaarakallaahu ku am ci ñoom doom bu góor rekk tudde nga ko limaamul mahdi ba muy fukki limaamul mahdi ak ñeent nekk ci biir yoof ablaye sila moom la naan min muxbirin xaala fiikum waalidul karami tukki na ci aji solo ja day mu wax fiikum nekk na ci yéen nii karami bàyyi ku al mahdiyul muntazar limamul mahdi ma ñu doon xaar imaamu man yaati njiit ma nga xam fa tabarakallahu dina dikk mu ne boobu nag ci la ñu sàkko ñoom ñëpp ku ci am doom bu góor nga tudd ko limaamul mahdi mu ne kon nga gis ne dalika al ismu boobu tur naadiratun xabla nadiraati tur bu tumuranke la woon ndax jamono yooju daawoo dégg lu bari kuy tudd limaamul mahdi kon yoof am fukki limaamul mahdi yu ak ñeent ndax sow jant fi maaribil aqsa ala saailil bahri boo demee ci maxsaarixul anwaar boo demee ci nuurul absaar téere yooyu wax nañ ne foofu la limaamul mahdi yu war a feeñ mu feeñ foofa yàlla dogal ko waaye nag yàlla nëbb ko ci jëmm yi yàlla dogal gune yooyu yëpp faatu ca ba ñuy ndaw ba mu des ñaar limaamu caw ak limaamu géy waaye limaamu Thiaw di doomu alxasan te ba tey boo demee ci masaarixul anwar mi ngi lay wax ne limaamul mahdi yu waaliduhu alxasan woy juróom wu góor wa sax alxasan lay tudd am na téere yu indi sax dàkkantalu al askari ka di ko jóg xaaxe mooy soldat nga gis foofu ne fa tabarakallahu loolu dëppoo na ak li am ndax Alassane Thiaw moo jur limaamu limaamu moom des fi ba yàlla dogal mu am ñeent fukki at woote mag ñi sax wax nañ ni limaamu gay bële mujj na ko ñëw gëm nangul ko wooteem ndax bu fekkonte ni nii limaamu yëpp danoo génn àdduna dinañu ne kat li mu fi des moom kott dib limaa moo tax moo tax yàlla bàyyi fi benn limaam muy limaamu géy boobu doomu junni yu géy ci yoof noonu yàlla dogal fekk it limaamul mahdi yu moomu ci ndawam yàlla wane ci moom ay kéemaan yu bari ba ni mu demee ba am fanweeri at ak ñett fekk boobu am na xarit wëllëre goo xam ni te gis nga fanweeri at ak ñett at yu ñuy fàttali atu yonent yàlla Isaa la woon démb muy 33 ans ci la ko yàlla jël woon bi mu amee fanweeri at ak ñett fekk booba amoon na xaritam doomu ndeyam bu ñu doon wax Mandione Diène Mandione Diène booba sunu boroom dogal muy wëllëranteeg limaamu lool alayhi salaatu wassalaam ku ci nekk dikk sa moroom ne ko bu ma amee doom bu góor day dinaa la ko tudde mel ni ñaari xarit di ànd rek ku ci nekk ne sa moroom bu ma amee doom bu góor dinaa la ko tudde yàlla dogal Seydina Limaamu soxnaam Faati Mbeng mucc muy doom bu góor waaye yàlla lu mu defar mu rafet njëkk Seydina Limaamu muy jot xibaar ba ne ko ngir xamal ko ni sa soxna mucc na manjoon jiin moo njëkk jot xibaar bi ñu ne ko waaw ani sa mbokk Limaamu soxna Faati Mbeng de mucc na yow de fu mu nekk xam nga ko kon wëri ko nga yëgal ko xibaar bi te xamal ko ni kat dafa am kiimaan bu doom ji indaale ndax dënn ba dañ caa bind ginnaaw ga dañ caa bind dënn ba ñu ngi ci bind Isaa ruullaahi gannaaw ga ñu bind ca Isaa ruullah mu jaaxal leen lool eh, Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ku bëggoon wéetal boroomam la ma ñoon seet ku ba gis ko ñëw ne ko ah Faati Mbeng day mucc na waaye nag wax nañu ne day dafa indaale kéemaan mu ne ko kéemaan ba mooy lan mu ne ko màndarga daal moo feeñ ci dënn ba ak ci diggu gannaaw ga dënn ba dañ caa bind xisaaru ulla gannaaw ga ñu bind ci xisaaru ulla sëy naa limaa mu ne ko kon day yont yàlla isaa moom tur ci lañ ko tudde sayidina isa ruullahi bàyyi lay daan ko wowe isa ma ndaw ñaarelu doomam bu góor lu tudde manjon jéen moma muy sayidina manjon nek ñaarelu khalifa sayidina imam al mahdi alayhi salatu wassalam sayidina isa ruullahi nekk fii ba am fanweeri at seydina limaamu génne ko génn ko yoof mu dem ngaa xam def fa ñetti at boobu Seydina Limaamu mi am juróom benn fukki at ak ñett bi Seydina Isaa Ruuhulaahi di matal ba muy am fanweeri at ak ñett te ñetti at yépp gisantewul ak baayam Limaamul Mahdi noona lu bari xew na fi ndax Baay Maamur bu mu ñëwee ci julli it ga Seydina Limaamu daf ko jox kurusu tàndarma ga ne ko Maamur ñaanal ma ndax matal naa juróom benn fukki at ak ñett at yi ma demee woon démb waaye Isaa ma ndaw matalagul te bu ma demee àdduna dina leen jàmm Seydina ma ñun daal eh, Seyd Baye Maamur Jaxate daal di hésité ne waaw ñun day ñaan ci yow lañ ko yaakaare bàyyi laay nekk ah kay nii ma leen di ñaanale noon ngeen ma war a ñaanale noona bàyyi Maamur tàllal loxoom di ñaan Seydina Limaamu ne ko sunu boroom nangu na ñaan gi fa tabaarakallaahu boobu Limaamu mu ngi am juróom benn fukkat ak ñett Seydina Issa Ruullaahi taawam am fanweeri at booba limaamu génn na Seydina Issa Ruullah ndax na mu ko waxee ñaari ñaari kuy mënuñoo bokk mbana ak histoire baak la ci xew lépp Seydina Issa Ruullaahi nekk ngaa xam nga xam ni maa ngaa xam baay maamu a fa nekkoon moom moo ko fa dalal moom Seydina Issa Ruullah

ba mu amee juróom benn fukki at ak juróom benn limaamu génn àdduna seydina isa ruullaahi am fanweeri at ak ñett waaye boobu fekk ma nga ngaa xam te nee naa ñetti at a ngi nii dundul ak baayam limaamu ndax boobu limaamu nee na ko sori ma mu dem ba ngaa xam dand ko fa limaamu nekk yoof ndaw la ñëw xibaar ko nekk ah sa baay day fi mu ne nii sonn na feebar ba sonal na ko lool boo ko bëggee gis nag faw nga laxas rek ñu daldi dee dem sow Seydina Isaa ne ko waxu gune sunu boroom wan na mu biig ni suma baay wuy dina boroomam mag ñi wax ne dañu julli jàkk ci fajar gi bay génn ci kër gi sinaa Isaa Ruuhullaahi ci diggante jàkk ji muy jàkk nga xam kër ga mu daldi faa daanu mbooloo ma yëpp daldi tiit ba mu xixee ñu ne ko ah, sang bi day tiital nga ñu mu ne li ma sama boroom won dey bu leen ko wonoon ndax sunu boroom wan na ma juróom-ñaari asamaan yëpp malaaka yi sàppe fa di teeru sang bu tedd ba Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam kon boobu la ko yàlla wan demuk sang bu tedd ba Seydina Limaam wolofal nañ ci ci lenn ci mag ne jant suux ci Seydina Isa weer wu suux ci bayti Maamour jaraafi diine ji eh, ngir teela dugg ci xutba bi rek dañuy tënk lu bari noonu ci la Seydina Isa waaja nag ngir ñëw jullee si bàyyam bu tedd ba seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam waaye foofa am na mbir yu ca xew mbir ya ca xew boo góor gi Bamar Gueye foog naa nettali na ko ci ay kaset ne dafa déggoon làbb yi ne tey la yont yàlla Isaa yi wàcc jóge juróom-ñaari asamaan ñu ne fan lay wàcc ñu ne yaraax dem fekk làbbayet dalde def beñ bu wex tal ni fil ren yonent yàlla isaay nona noona góor gi baamar gi nee na ko fu yubbu won ba mu deme mu fekk fa len ci mag ñu mu xam muy magu yof mu ne len waaw lu ngeen di def fi ñu ne ko sayidina isa de la ñuy xaar mom la ñuy teeru mu joge nga xam ñew mom la ñuy sax gar bi la wara wacc ngir mu dem jullee ji bàyyam limaamu te booba Seydina limaamu génn na àdduna ci guddi àjjuma ji samedi dimanche Seydina Issa Ruullaahi doog a te booba chambre froide amul lu nuy glacé doomu aadama amul te Seydina limaamu bi mu génnee àdduna mag ñi nee nañu nañ ko denc njaboot gi Seydina Mañoon ak maalik taxaw ne faw ñu xaar Seydina Issa Ruuhullah ñu nekk ci coow waaye la ci am solo mooy ba ñu wàccee gaaru yaraax làbbaye taxaw di xaar ne yont yàlla Issa mooy wàcc tey góor gi Baamar Gueye nee na maa ngi taxaw ndax loolu ñu ne woon yont yàlla Issa day wàcc fekk nee na booba làbbaye bu ñu daan def seen prêche yi di jàllale ay façon jàppo nee fekk fu mu leen daan seetaane ba noppi gis fi làbba yi prêché ñu ne nag ñu ngi jox ñëpp rendez-vous dimanche ci gaaru yaraax ndax fa la yont yàlla Isaa di wàcc yàlla wan na ko seen boroom xam-xam yi góor gi baamar nee na moom loolu foofu la ko déggee ba mu tax mu daal laxas moom it dem yar gaar ko Seydina Isaa wàcc na leen waaw làbbe yi lu ñuy def fii ñu ne ka ñoom day nee na ñu yont yàlla Isaa moo fi wàcc tey noona mu ne leen ah kon ñun nii Isaa nañu dem ndax boobu ñi ngi xaar jëmm ju weex ja xamewuñu yont yàlla Isaa jëmm ju ñuul noona Seydina Isaa ne kon ñun nii Isaa day kon nañu dem ba ñu ñëwee ba fii cour Sainte Marie da tey nekk tey fa la jullee tàkkusaan ba muy jullee tàkkusaan ba noppi ñu ne kon leer gi day romb na fi waaye ba ñu gisee fa mu doon jullee ñu ne kon fii leer gi nekkoon na fi per Mariste yi daal fa tabaarakallaahu jël bërëb ba def fa jàngukaay def fa église foog naa ni Victor Emmanuel Kabrita ànd na ak moom ay yooni yooni yoon ci Chérif Ousseynou Laye yàlla na yàlla yokk leeram muy témoigner loolu ndax moom yàlla dafa dogal moom Victor Emmanuel Kabrita boobu man maa ngi jàngalee cours Sainte Marie de Anne école booba jàngale naa fa 10 ans eh, yàlla dogal moom Victor Emmanuel Kabrita ba mu nekkee gune tu tànk fa la jànge ba ni mu amee bagam ba dem bitim réew ba dellu siwaat ba nekkaat fa directeur pendant trente quatre ans kon ay yooni yoon invite na ay ngir ñu def fa témoignage jéemoon na sax symboliser béréb ba nga xam fa la Issa jullee woon ndax nee na ni moom ba mu nekkee xale bérébu ñaanukaay la woon yi dañ fa daan di ñaan rôle bi Cour Marie sur le dialogue islamo-chrétien foog nani, ay at yu bari mom Victor Emmanuel Cabrita doonoon tubab doon na ñëw appel di témoigner lolu ay at yu bare bare bari bu daan ñëw appel man maa daan recevoir ker Cherif Ousseynou lay te daan na def témoignage boobu may fatali ne bem bi ma bindee man livre sur les enseignements de al-imam Laye alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw appel gis livre bi mu ne ma mais monsieur Bass man mosuma xam ne da nga bind livre ma ne ah loolu de yàlla dogal na ko atile mu je prends en charge la cérémonie de dédicace mu invité ay autorités yu mag parmi lesquelles Moustapha Niass ancien premier ministre ñëwoon ci cérémonie de dédicace boobu ak grand sëriñ de Dakar El Ibrahima Diop te ba ñu ñëwee ci Cour Sainte-Marie mu témoigné ne. ñun waa Kër Labbe gëm nañu ne école bii barke bi mu am yont yàlla Isaa mi fi wàccoon jullee fee tax archive yaa ngi fi eh, fa tabaarakallaahu fa la Seynaa Isaa jullee woon tàkkusaan jullee na tàkkusaan yaraax jàkkeer la war fanaani yoof non la ko foog naa libaas ña waxe Seyna isa nag bu mu ñëwee fekk fa Seyna Mandione fekk fa malik ak seen taxawaay fekk fa saaba yi daal de saafonteeg ñoom ba mu demee bàyyi malik Diop la fekk moom moo doon garde fa ñu denc sang bu tedd ba Seydina Limaamu te booba bàyyi lay génn na àdduna ca guddi ajjuma ja fanaan fa ajjuma ja yendu fa ajjuma ji samedi bi dimanche bi Seydina Issa doog a yegg xëy altine ci yoor yoor yoor yooru góor Seydina Issa digle ñu sang baayam bu tedd ba war koo jullee nag tabarakallahu foofu imaam Saxiir a ngi wax wax ju am solo ñoo ne woon maadi yu Isaay doon jaraafam moo di doon naa yi ba moo koy jullee lii am na ndax bu ñu nee yonent la Isa mooy jullee imaamul Mahdi donte Seydina Limaamu dafa am doom ju tudd Isa ba mbir ya taree weddi ga tar ñu ne Limaamu sa woote bi dinañ ko fay mu jël yonent yàlla Isa doomam ju ndaw jooju boobu mi ngi am juróom-ñeenti at mu teg ko ci mbaggam ni lii may wax man Limaamu bu matul gune sii dina ko mottali donte àdduna dafa doon tukki jant ba dem bay waaj a fenk sunu borom dina fa téye jant booba du fenk ba gune si màgg ba mottali ma lii may wax ba dëggal ko kon loolu defi la loolu waat la waat boobu nag yàlla nga ko ci jox ndam ca bis boobu mu tëdde moom Seydina Limaamu doomam ju tedd ja Seydina Isaa taxaw tiim ko war ko jullee tabaarakallaahu foofu la Seydina Issa defe nag xutba bii nga xam ni moom la ñu war a dugg tey waxtaane ko fa mu ko jëlee moo sori mu ne kon lii mooy xutba bu njëkk bi nga xam ni Seydina Issa ruullaahi alayhi salaatu wasalaam def na ko moom ma nga xam ni mooy xalifa bu njëkk ci baayam bu tedd ba Seydina Imaamilaa il Mahdi ba mu koy def mi ngi am fanweeri at ak ñett te boo demee ci nuurul absaar ma nga lay wax ne yont yàlla isa dina nekk xalifa muhammad alayhi salaatu wasalaam ñeen fukki at ci kaw suuf boo delloo ci histoire gisoo fenn fu yonent bi démb amoon xalifa bu tudd isa nga ñëw fii ci saw jant seydina isa ru allahi nekk xalifa bu seydina limaamu 1909 ba 1949 alasaan mooy doon bàyyi limaamul mahdi Seydina Limaamu baayam tudd Alassane Seydina Limaamu demul ba woote ne yàlla ma yónni doogu tudd boppam Limaamul di ba muy tudd doomam Seydina Issa Rouhou Laye mañ ne woon muy wuutu limaam fa yuqiru max di mooy saxal ay jàngaleem booba moom wooteegul boobu ma ngay bay di gét amagul ñeent fukki at ba woote booba wooteegul mi ngi am fanweeri at ak ñett li yëpp yàlla def muy ay coïncidence loo xam sax amul ci génération ci trois générations la am kon du jëfu doomu aadama jëfu yàlla la tabaarakallaahu yàlla nag faalun li maa yurit def li ko ba ana taala yàlla kenn mënul jeexal ay programme man bu ba motax wala yakmilu imanu ahadukum hatta yuminu bi qudrati llahi taala ngëmu kenn du mat ludul ne da nga gëm dogalup yàlla waye nak ba mu ñëwé mom limamul mahdi ci lan lañ wo bakka seydina isa ruwallahi wuto yit def ñeen fukki at ci khilafam ci lan lañu wo kon seydina isa ngi taxaw nak wara joxe programme bi nga xamanteni fa tabarakallah ci la wara tek khilafam bi nga xamanteni ni fa tabarakallah ci la ko sunu borom tek mune bismillahir rahmanir rahim wassalatu wasalaam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mune xewal ak mucc yàlla na sax di nek ci sangu sunu sayidina muhammad yàlla na nek ci njabotam gu tedd ga nekk ca saabaam ya mboole seen mu ne alhamdulilahi lazi yuxyil mawta maa ngi sant yàlla ma nga xam ni moom mooy dundal aji dee wa huwa ala kulli cheyin xadir yàlla moomu mooy aji attan bépp mbir mu ne wasalaatu xéewal wasalaamu ak mucc ala seydil mursalin yàlla na nekk ci sangu ñu ñu yónni ña wa ala alihi ak ay ñoñam wa saxbihi ak isaabaam ajmain boole seen amma baad mu ne ginnaaw loolu fa min sayidina isa ruullahi tukkee na ci sayidina isa ruullah najli imaamillaahi kadi doomi ilimaanu yàlla ja almaaruuf kadi kañu xam bil xayri ci yiw wal karami ak tedd ila jamihi asxaabihi jëm ci mbooleem ay saabaam bayna rijaal yi diggante góor wa nisaay ak jigéen mu ne lam atruk bàyyiwuma axadan kenn baynal xarib yi diggante way jege wal baidi ak way sori usallimu maa ngi nuyu day aleykum ci yéen wa ushirukum ma leen di yëgal nag bi anna abana niki sunu baay day imaamillaahi këddi ilimaanu yàlla ja xattu wu fiya faatu na ay li ma ci jublu خط خرج جننا من الدنيا تي أدنى دار الفناء كدي كروك جيخ إلى الآخرة جم تي الآخرة دار الحق كروك دق والقرار أكسخ من وعلم خملين أنه نكي موم كان يدعو دون نووتي إلى الله جم تي يلا بالدين الخالص تي دين جسل ولم يكن نكل وون يدعو دي واحدا كن لنفسه نيل بوبام فمن كان كيب كنك يؤمن دي گم بالله تي يالا ورسوله اك اي يونتام فليعبده نك جامو وليخلص تنسلل عبادته جاموم بلا اشراك تمبنكو بنكو عندك بوكالي mu ne waaye nag waman kaana yaabudu képp koo xam ne da nga nekkoon di jaamu li ruyati abbi imaama laa ngir sama teewuk baay ngir sama baay limaamu gis la mu ne fal yatruk na bàyyi ibadatuhu ak jaamoom li annahu ndax niki moom sama baay limaamu day madaa wéy na madaa faatu na kama madaa niki mu faatoo allazina ña nga xam ni kaanoo nekkoon nanu min xablihi di ko jiitu li anna allaha taala qaal ndax ni ki yàlla day aji kawe ja wax na kullu nafsin zaiqatul maut bépp bakken di nga mos de kullu man alayha fan wa yabqa waj'u rabbika zul jalali wal ikram lépp lu fi da fay jeex ba mu dess sa kanamuk borom ka nga xamni moy borom boroom màggaku tedd mune wa aidan batay ulimukum maa di yëgal anna seydina imaamillahi ni ki sunu sang ilimaanu yàlla ja kaana yaquul daan na wax ana ni ki man day mursalun ku ñu yónni laa wa ma'muurun ku ñu digal laa bi tabliixi ci jotal wa ma balaxtukum jotaluma leen ilaa ma amarani llaahu lu dul la ma yàlla digal bii ca moom ilaykum jëmale ko ci yéen li taabuduuhu ngir ngeen jaamu ko muxlisiina lahu te it ngeen sellal jaamu ga ibaadatakum seen jaamu xay su fu ngeen fi mënti nekk uxlimukum maa ngi leen di xamal anni naka man maa amartukum digaluma leen dey illa bi zalika ndere loolu kon la nga xam ni fa tabaarakallaahu moom la seydina limaamu doon digle ci dundam ba mu fi jóge it ki ko wuutu di xalifaam seydina isaa ruullaahi nee na moom loolu day la taxaw di ko digle mu ne wa uusikum maa ngi leen di dénk bil ijtihaad ci farlu fi taatillaahi ci topp yàlla wa rasuulihi ak yonentaam wa aqimu te ngeen taxawal asalaata julli wa atu zakkaata te ngeen génne azaka wa suumu ramadaana te ngeen woor weeru koor bi ixlaasin ci sellal wa axriju te te ngeen génne zakat al fitri asakay muurum koor fil waxti ca waxtu wa mu ne wa duumoo na ngeen sax ala kathrati zikrillahi ci baral tudd yàlla fi kulli waxtin ci bépp waxtu wa tafakkaru ngeen di xalam fi muhjizaatillahi ci kéemaani yàlla yi ka xalqi samawaati wal ard niki mu bind asamaan ak suuf wa ma baynahuma ak la nekk seen diggante mu ne wasmutu na ngeen noppi ama ca la nga xam ne laa xayra fii yiw nekku ca lépp loo xam ne nit ki boo ko waxee wax ji du la jural yiw nee na nga ca noppi mu ne waxaddu na ngeen dam albasara xool ga ama ca la nga xam ni yamnau llahu nazarahu yàlla tere na nga xool ko lépp lu la yàlla tere ci nga xool ko nee na bu ko xool nang ca damm sa bët sa gis-gis mu ne wax fazu na ngeen wattu it aljawaarixa cër ya minal muharramaat ci lu ñu araamal wal makruhaat ak la nu sib mu ne wasbiroo na ngeen muñ li xawlihi ñeel waxam ja taala kadi aji kawe يا أيها الذين آمنوا ينجايجم كون فوفو يلا يوخ أصبروا نجن مون وصابروا نجن مون يلنتي ورابطوا تنجن جابو وتقول الله تيد نجن رجل يلا لعلكم أمانين تفلحون نجن تخي من ورد ويت نجن دي نانجو بقضاء الله تي دوغل يلا يلا washkuruhu ngeen di ko sant ala niamihi ci ay xéewalam ndax àdduna ñaar yooyu fi nekk yàlla dafay dogal la muy dogal léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naqari waaye lépp lu mu dogal rek na ko nangu yàlla it di xéewale mu ne waaye bu la xéewale it na nga koy sant te yonent bi salaa alayhi sallam digle fa tabarakallahu ne jaam bi nay ñaan boroomam jamono ja nekkee ci xéewal jaam nay sant boroomam ci jamono ja mu nekkee ci xéewal kon équilibre boobu nit ki def ko di dund fa nga nekkee ci xéewal ñaanal sa boroom fa nga nekkee ci jafe-jafe it dellul sant sa boroom ku ci nekk rek dimension la lay yóbbu fa tabaarakallaahu mu ne wax zaru na ngeen moytu azulma tooñ baynakum seen diggante لأن الله ندخ نيك يالا حرام داي ارامل الظلم توغ على نفسه تي بوبم يالا مي بند دوم ادمي موم لين سخ دو توغ من وجعله دفنكو يت محرما مودي لونو ارامل بين العباد تي ديغنت اي جامم من واي وعفو نين جيغل ان اخوانكم سن مبوك بعد العصرات سن لن توغ lenn tooñ yi la nit ñi tooñ erreur ya ñuy def nee na nga leen koy jéggal wax sinu te it na ngeen rafetal ilaa man asaa ilaykum képp ku ñaawal jëme ci yow it nanga rafetal jëmale ci moom wajtanibu na ngeen moytu aydan ba tey aljidaala xuloo wal ak werante wa tasaaful ak suufelante wa taayub ak ayibalante wa xayra zalika ak yeneen yu dul yooyu mima ca la nga xam ni mana tere naka allahu yàlla minhu ci moom al ibaad jàmb mu ne wa allifu na ngeen tàppe xulubukum seen xol fil xayri ci yiw wa amuru na ngeen di diklante it bil maaruf ci lu baax wan xaw ngeen di terante anil munkar ci lu ñu sib mu ne wa man aamana képp ku gëm billaahi ci yàlla wa rasuli ak yonentaam falyaxtadi na roy bi abana ci sunu baay bi abina ci sunu baay imaamillaahi kadi ilimaanu yàlla ja fi xisaalihi ci jikkoom ya wa afaalihi ak jëfam ya wala yaqul te it bu mu wax amantu faxat gëm naa rek bi xayri tibaahi amrihi ci ludul topp ay digalam mu ne wa zalika loolu day xusraanun perte la لمن يفعله تي كيب képp جيف ko jëf kon fa tabarakallahu gëm dafay ànd ak jëf ki nga gëm da لا xam lan la la digal boo xamee la mu nga jëfe la mu la diggal waye jàpp ni gëm rek doyna ah fi day seydna isa ruullahi ne la yaqul bu mu wax amantu fakhat gëm naa rek bi ghayri tibahi amrihi ci lu dul ay diglem mu ne zalika khusranun liman yafaluhu loolu day pertaanga lay jural ci képp ku ko jëf rawatina nag ku jàpp ne fa mu bokk tax na ba lu ko neex def kooku it pertaanga la fa nga la nga gëm boo ko gëmee da nga koy jëfe fa nga bokk fa nga bokk da nga koy niru fa tabaarakallaahu loolu moo lay jural ndam ëllëg waaye jàpp ni gëm nga rek gëm ga nga gëm tax dina la muccal ci lu àndul ak jëf Seydina Isaa nee na pertaange la mu ne wa an abi ni sama bàyyi xaala wax lam abduukum lil khital woowu ma leen ngir reyante wala jihaad wala jihaad joo xam ne dañ ko teg ci ay jaasi mu ne walam yakkun lahu sikkiin sama baay limaamu de yorul woon paaka wala suyuufun yorul woon ay jaasi wala rimaaxun yorul woon ay xeej wa xayra zalika ak yeneen yu dul naa Limaamul Mahdi pionnier de la paix la woon dafa doon wax ne paaka bu ma yette xalima sax yoruma ko tarax laay laa wëre àdduna woo leen ci sunu borom ñu wuyu si ma mu wax ne donte da ngay dox jaam yàlla dab la ne la hee jël sëb kurus dagg ko nee na sëggal for kurus googa nee na bu la nee bu ko fi fore nag nee na bàyyi ko kurus ga dem wuti beneen kurus ndax moom jàmm la woote ba fa tabarakallahu berbam yeb mu tudde ko jammalahi te jammalahi lan lay firi moy jammu yàlla donc lolou le seydina isa ulahi alayhi salatu wassalam di wax fi ndax gis ngeen ne seydina limam limu indi ci yonam wi moy jihad ju magja te jihad ju magja moy lan moy jihadu nafs xex ak sa bakken xex ak say passion meuna ping say cër ba ci lépp lo xamni sunu borom daf ko aramal nga bañ ko def noot sa xol ci kiñaan noot sa xol ci rëy noot sa xol ci aaw ak yeneen ak yeneen yeneen yu dul yooyu fa tabaarakallaahu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne bu doomu aadama yi dul woon rëccël di tooñ seen boroom dinanu def lu gën a màgg tooñ sunu boroom ñu ne ko loolu mooy lan mu ne loolu mooy aaw naw say jëf l'autosatisfaction nee na loolu moo gën a aay tooñ sa boroom ndax booy tooñ sa boroom di rëcc cël yenn yi di dellu di ko tuub di nga xam ne yow nit rek nga te yàlla def la bind sig matati kon fa tabaarakallaahu nit jàpp ne yaa gën ñëpp mbaa nga jàpp ni yow ku mat nga walla yéem say jëf loolu sax moom moo gën a aay moom moo gën a garaaw li nga xamante ni moom mooy fa tabaarakallaahu tooñ sa boroom mu ne kon ilaa annahu kaana yaamurukum bi jihaadi nafs moom day la mu leen doon digal moom limaamu mooy jihaadu nafs muy xeex ak sa bakkan te loolu mooy waxi wa xifzul jawaarix mi ma xaramalu ala al ibaad mooy wattu say cër ca la nga xam ni sunu boroom araamal na ko ci jaamam wal ijtihaad ak farlu fi taatillaahi ci topp yàlla wa rasuli ak yonentaam xay su kuntum fépp fu ngeen fi mënti nekk mu ne wa ana aydan man ba tey kazalika ni ki noonu rek maa amartukum illa bi zalik digaluma leen lu dul loolu kon moom Seydina Isaa ñëwul indi beneen yoon ñëwul indi beneen doctrine lu dul ne li baayam bu tedd ba imaamilaa il mahdi woote woon moom la woote la mu indi woon moom la indi te gis nga boo demee ci almahdi yow asharaatu saa mi ngi wax ne isa yuqiru sunu ul mahdi yonent yàlla isa bu ñëwee day te al mahdi wa shiratu saa ka ko bind muy ali saabun ali saabun di imaam ca makka nee na nañuy xamee màndargay limaamul mahdi moom bu ñëwee kay saxal ay mbiram ka koy dëggal mooy doon yonent yàlla isa ma ngi koy wax ca ba muy commentaire xadis ba yonent bi wax ne kayfa antum waaw yéen jullit ni naka ngeen di def isa nazala ibnu mariam fiikum wa imaamukum minkum bés bu yont yàlla Isaa wàcc ci yéen te seen njiit yéen jullit ñi nekk ci seen biir njiit loolu boo demee Ali Saabo ni ngi wax ne imaamul mahdi yu lay doon kon te ku nekk xam nga ni njiitu jullit ñi kan la muy Seydina Muhammad kon dafay ñëwaat ci jëmmi imaamil mahdi foofu lay commenté addis ba ne Isaa moom boobu bu ñëweewaatee ci kuréelu islaam yuqiru sunul mahdi moom mooy saxal moom mooy dëggal li nga xam ni fa tabarakallahu moom la imaami la il mahdi indi kon nga gis fii ni sayidna isa ruullah alayhi salaatu wasalaam waxee ne wa ma amartukum man de digaluma leen illa bi zalika ndare loola rijaalan góor wa nisaan ak jigéen kabiran mag wa saxiran ak ndaw kon moo tax nga gis fa tabarakallahu ci jàngaleem ba tey diine ji ni ngay gisee ñaar ñi ñu fegg boo xoolee diine ñaare dañ ci fegg gune fegg ci jigéen waaye nga gis moom ci jàngaleem boo xoolee nga gis ci jotaayu kuréelam jigéen ñi nañ ci amee taxawaay ndaw ñi it nañ ci ame taxawaay mu ne xurran gor waa abdan ak jaam kon ñépp la woo fa tabarakallahu ci jaamu yàlla googu ci yem moo من ومن تبعه كيب كوكو توب وصدقه nga deugal ko day yahtadi di nga jub waye wa man lam yatabi'uhu képp ku ko toppul laa yadurru day du lor illa nafsahu ndare boppam te sa yajzillaahu yàlla fay kullu nafsin bep baken bima kasabat ca lamu fagandiku mune fa man laqiya khayran kep ku dajeek yiw nag fal yaxmadillaha na sant yàlla wa rasulih ak yonentam ومن لخي شرا كيب كو داجيك اي من فلا يلو من نبو مغاني الا نفسه ندر بوبم من اوسيكم ماغي لين دي دنك بالدوام تي صخ على الهدى تي نجوب موي لو جافي واي ناغين تي صخ رك ناغين صخ تي نجوب كيلكو سوا لي كونترانت ناغين تي صخ كيلكو سوا لي تانتاسيون نينا ناغين صخ تي نجوب رك ndax moy la am mucc wa taqwa الله العظيم نين سخيت تي يالا ماغا خامني موي ادي ماغ وعمل الخير اك جيف يو لو جافي نك تي جامونو جي نده دا ngay جيف يو ني فاي لا سفان واي سخال رك تي جيف يو جوجا وعمل الخير في كل حين تي بيب جامونو تي بيب سيركونستانس نين نا جيف يو مو تيجي نك اي نيان فتبارك الله تي خطبه بو تدبي من هداكم الله يالنا لين يالا جوبال امين يالنا نو يالا جوبال allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallam kon fa tabarakallahu mbokk yu tedde ñu doon déglu foofu la xutba benneel bu seydina isa ruula alayhi salaatu wasalaam jeexe ñuy ñaan sunu borom yàlla nu defal dégg ak topp yàlla mi baax te amuk mbaax yàlla na nu yàlla baaxal yàlla na yàlla baaxal sunuy mbir yàlla na yàlla baaxal sunu àdduna baaxal sunu alaaxira واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين jërëjëf sàng bi lay waxtaar waxtaan wi am na solo lool lool lool lool yal na yàlla nangul nu defal nu dégg ak topp yal na yàlla jubal nu yal na yàlla fay la yiw li nga fi wax lépp macha allahu tabarakallah rafet na dëgg yàlla dénkaan yu am solo yal na nu yàlla saxal ci njub ni nga ko waxe ak tamit di def yiw ci bépp jamono bu mu mënti doon dëgg yàlla xol yi tooyati nañu ngir it lii nii maam Seydi waxoon na ko bu yàgg waaye tey jii buñ ko déggaatee dafay mel ni rekk tey la ko waxaat ngir fasaa bi nga xam ni am na ko kon nun de ñàkkunu fu nu wéeru ñàkkunu tamit lu nu xool ñàkkunu tamit lu nu topp kon bu ko defee rek doon naa rek yàlla nu yàlla yombalal nu nu mën a topp gën kaa rafeti toppin bu ko defee mbokk yi noo ko déggandoo waxtaan waa ngi noonu am na solo lool dañ leen di ubbi ligne bi rek di leen si xaar di si xaarit seeni kàddu si 88 628 33 66 88 628 33 66 bisimilah bisimilah mbokk mi ah kon nu ngi jéggalu mu mel ni rek ku bëgg a dugg ci bu mu jokkoo bi 88 628 33 66 mooy seen bu mu jokkoo tey nu ngi woon ci xutbu Seydina Issa Rouhou mi nga xam ne defoon naka bismillah mbokk mi laay ma diine ñu ngi ziare tur wi biram samba biram samb kambaren biram bismillah waaw yal na yàlla nangul nu yalla ni yalla fayal mom bay amin ya rabbi alamin ko yalla fayal amin fayal mom amin ya rabbi amin njaboot sëy li amin ya rabbi amin ak njabootu Seydina Limaamu nekk. amiin. yal na yàlla yokk seen